tournée bi de def nañ ko vraiment euh, man mi nga xamante ne maa ko organisé man ak sama waa comité départemental ah defe nañ ne daal jege nañ euh, neex parce que góorgóorlu nañ daal ba def li nga xamante ne moom lañ bëggoon def. xëy na nag am na ay failles wala mu am ay insuffisance ñu xam ne yàlla rek moo mot euh, liñ ci jublu woon rek mooy mu rafet baax kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu nga xamante ne ñëw nañ parce que ñoom ñoo tax journée bi réussir les départements euh, de la Croix-Rouge sénégalaise euh, bu ma leen limee danaa am ñu ma bàyyi parce que tous les départements la képp koo xam ne ñëwoo say volontaire ñëwuñ sax am nga yéene ñëw sa xol a ngi Kaolack ñu remercier leen sant leen bu baax a baax euh, ci turi présidente croix sénégalaise remercier également les techniciens le secrétaire général les chefs de département ñoom ñëpp teew nañ vraiment fekk si li nga xamante ne moom mooy journée Euh, national du volontariat bi Croix-Rouge organisé abrité ko. volontaires yi nag li boo dégloo ñëpp ñi nga xamante ne wax nañ ci journée bi dañ leen ñaax pour ñu ànd ak discipline ànd ak yar topp ci kana ci ginnaaw mag ñi bu ko defee xam li mag ñi xam bu mag ñi demee ñu mun a toog fees seen place bañ a buuxanteeg ñoom comme choisir nañ être volontaire parce que ñun ñëpp jaar nañ ci volontariat. ba léegi yàlla def ñu jiite croix rouge kon ñoom nañ nekk ci ginnaaw mag ñi euh, bañ a yàkkamti tereewul nag nañuy wut également liggéey parce que waxuñu rek nga topp croix rouge ne volontaire laa ba wuutoo loo xam ne moom nga war a yóbbu sa kër loolu également vraiment ñaax nañ leen ko sant leen ci euh, puus leen ci pour ñu def ko vraiment et euh, on s'adresse à tous les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise département boo mun a dëkk parce que Croix-Rouge sénégalaise moom moom volontaire yi. Kaolack nag dañ ko tànn parce li tax ñu tànn ko dañu seetlu ne bi fi pandémie bi ñëwee ba léegi ñu ñaari at liggéey bu mucc ayib la ñu liggéey te bi ma fi njëkkee ñëw di daaw dama. taseeg gouverneur bi ak médecin chef régional bi ak médecin chef de district bi ci biir liggéey bi mu ne ma man dañ ma affecté rek fii biñ ma affecté fii ma ñëw xaw ma dara ci li may def waaye bu croix amutoon man sama bopp man gouverneur maa koy créé croix rouge ak fépp foo ko mën a wooyee boo ne ko tey tey jii mobiliser ma 300 wala 400 wala 500 volontaire mu mobiliser leen ci sens xam nga moom nga nag ay juróomi téeméer ñeenti téeméer ñetti téeméer yi volontaire ci saasi te ñooñu duñu laaj dërëm loolu yombul ñuy waxante dëgg te ñuy ay xale yu góor ay xale yu jigéen yoo xam ne ñu ngi ci seen digg ndaw seen digg doole jàng ba am seeni xam-xam nangu ko delloo askan wi loolu lu am solo la donc loolu bokk na li ci lu tax léegi tim gis ngeen ne volontaires yi dañ leen tas ay pàcc pàcc bi nga xam ne def nañu seen formation ba pare en soins infirmiers donc mën nañu am na lu ñu mën a faj ak nu ñu waxanteeg askan wi waaye am na ñoo xam ne aussi ay secourisme lañ secourisme la ñu def maanaam bu fekkente ne nit gaañu na wala nit xam na wala nit am na ay jànkontoog ay ay difficulté am nañu noo xam ne buñ ca buñ ca jógee buñ ko defee euh, bu soobee yàlla loolu Euh, bu mét bi amoon dana wàññeeku bu naroon a garaaw du garaaw euh, pàcc boobu ñu wane ko ñu wane nag ñeneen ñu nga xam ne ci leneen la ñuy def leneen la ñuy def ah ñoom tim ñu bari torop gis ngeen leen xam nga ñaari tribune ñu feesal leen ak ay ndaw ñoo xam ne seen ñi ngi ci seen digg doole loolu lu am solo la te président bi nag muy Mbagnick Ndiaye di nit koo xam ne dafa Euh, lënkaloog euh, gouverneur mais lënkaloog bépp service technique bu nekk ci région bi donc loolu di lu am solo ñu xam ne moom mu organiser que lu yomb lay doon ci moom ndax dina am ñu ko jàppale waaye tim nit ñi wuy si ko ah, dina yomb torop xam nga dañ ne volontariat boo ko gisee ci juróom-ñaari sartu Croix-Rouge la bokk bi nga xam ne moo moo mooy mooy valeur rouge sart yooyu euh, benn ci ñoom volontariat yàlla maanaam ngay liggéey te doo ci séntu dara doo ci seen payoor ñun nag bu fekkente ne da nga nekk ci dëkk dëkku diine dañ ne ah kay di nga ci seen fayu yàlla waaye daal gannaaw fayul yàlla séntuwuñ ci xaalis séntuwuñ ci dara loolu mooy volontariat nga am sa temps am sa xam-xam wala nga am sa xaalis wala nga am sa daal nga ne naa ci jàppale Croix-Rouge pour mu jàppale ñeneen yi Euh, loolu mooy volontariat volontaire bi nag ñu ne tey nga nekk volontaire pour tabax ëllëg yi suba boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy bokk ah muy muy muy avenir bu rafet boo xam ne ñëpp danañ ci mën a bokk seddu ci te seddu bi nekk seen cër bu rafet loolu mooy être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun mooy loo xam ne yow boo fekkente ne wax nga ne tey jii man volontaire la waaye bu ëllëgee dama koy bokk ak ñëpp ah, volontaire bi eh, moom mooy ñëwal boppam bëgg-bëggam la engagement am la parce que bu fekkente ne euh, euh, boo bëgguloo ko doo fi yàgg waaye boo seetee ba xam ne yow kat nga ne sama jot bi am naa ko léeg-léeg dinaa dem Croix jàppale fa loolu sa bëgg-bëgg bopp la sa engagement bopp la te séntu woo ci dara euh, dina leen di ñaax nag parce que loolu tim ci ci li ñuy wax ci tubaab motivation mooy neexal neexal bi mooy ñu xam ne nii xëy na bi mu fi ñëw fii la tolloon ci xam-xam nañu yokk xam-xamam mooy renforcer si capacité former ko ba nga xam ne su ëllëgee li mu mënoon dana am lu ëpp loolu dana am loo xam ne dana ko mën mu jëmale ko kanam mën na am sax mu am fa formation boo xam ne dana am métier ba wut métier dafa liggéey léeg-léeg muy dellu si waat croix ndax su fekkee loolu am na doo ko fàtte doo fàtte ne kii moo tax ma am lii su ko defee loolu ci motivation yi ñuy def bés bi dañuy wax nit ñi na leen seen taxawaay lii la jërë ngeen jëf xam nga loolu liggéey jërë ngeen jëf daf caa baax tey journée bi màggal leen ñi nga xam ne gis nga ñin fi dekoore waaye ñi nga xam ne liggéey nañu ñi fi jógee aussi ñu di leen fàttaliku ndax loolu tim ci la bokk donc euh, bés bi bés boo xam ne la wax lañ dañ ciy sargal volontaire yëpp woo gën leen a ñaax nag gën a saafonteeg ñoom ñu xam ne seen liggéey bi am na solo te war nañ ci taxaw gën ci dëgg